man baara mi man ñaat pulaaw maa ngi koy joxe nii maa ngi woo bool bool yëpp ku ci nekk la nga am nga def ko ci pour ñu bomb dëkk